salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di leen ñaanal jàmm nekk di ko sàkku si yéen tey nag su ngeen gisee vidéo bi ngeen xam ne wuute nag yeneen vidéo yi loolu rek moo taxoon ñu xawoon a géej ci li nga xamante ne mooy réseau yi nekkoon defaraat li nga xamante ne mooy studio bi macha allah ñu sàkku si ñëpp ngeen ñaana ñu yàlla sàmmal ñu ko te aussi mu yokkal ñu ko mu nekk yeneen tey suñu vidéo bi dama doon lire benn texte texte bi dafa comme que man dama see bëgg a jëriñu pourquoi pas ñi nga xamante ne ñooy samay abone ñi nga xamante ne tamit dañoo bëgg lu baax dañoo bëgg avancer dañoo bëgg a réussir seen pour quoi pas duma leen ko wan mu nekk dis mbir yoo xamante ne bépp nit boo xamante ne incha allah saxoo ne ko ci sa àddina nga takku si incha allah di nga gis réussir bu mag a mag a mag ci sa àddina man de fas yéene ko jëfe nañ dem seetaan vidéo ba mu jeex ñu topp dis mbir yooy noonu incha allah ñun ñëpp dinañ ci jëriñu laataa loolu mbokk yi balaa ñëw sori si vidéo bi dama lay demande rek su fekkee abonné goo ci sama chaîne YouTube bi maa ngi lay demander nga abonné aussi tamit nga aimé vidéo bi soo ko mënee partage tamit ba keneen mën see jëriñoo nga partagé ko ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na addaalu ki nga xamante ne mooy tegtal lu baax moo ki koy def ñooyam tey fukki mbir laa leen yoo xamante ne incha allah bépp nit muy góor wala muy jigéen bépp nit boo xamante ne jéem na see saxoo incha allah dana gis réussir dana gis avancement bu baax a baax a baax tàmbale ko ci man ba ci yow mi nga xamante ne yaay seetaan vidéo bi laataa may sori mbokk yi du ma dañ di la présenté ki nga xamante ne mooy suñu partenaire ñu koy wax Sissoko Habbatu Sauda Sissoko Habbatu Sauda nekk ab entreprise boo xamante ne ne moom la ñuy wax Habbatu Sauda bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na lépp lay faj ba mu des dee ñoom lañ ko maîtriser lool macha allah ci gàttal képp koo xamante ne da ngay jàmbat ab jàngoro muy cancer diabète ak ay hémorroïdes ak yeneen jàngoro yu bëree bëri yoo xamante ne ñun moo ñu sonal jamono jii nii gaawal nga contacter Ciseaux Habbatu Sauda ñoom yàlla mel ni xam-xam bu baax baax macha allah dañuy dem fule ci àddina bi seen PDG bi rek keroog kii nga xamante ne mooy Soudaïs nekk jàngkat bu mag si fële sa Arabie Saoudite invité woon na ko am ay place yu mag a mag fële États-Unis ak France Espagne ak Gambie Sénégal ak yeneen dëkk yu bëree bëree bëri nekk ñu efficace di jële seen médecine ak seen i garab fële nga xamante ne mooy ay Pakistan ak yeneen dëkk yi nga xamante ne avancé na ci wàllu médecine prophétique kon toogaay amatul de ndax si soxabul sawda de seen wér-gu-yaram rek moo leen tax a jóg premier mbir bi nga xamante ne boo ko saxoo nga topp ko incha allah di nga gis réussite bu mag mooy ak tanzim tanzim suñ ko waxee mooy lan mooy organisation organisation bépp nit muy góor wala jigéen dafa war am li nga xamante ne mooy organisation am ay heure am su mënee am sax emploi du temps journée su ma xëyee la laay def su ngoonee la laay def su may tëdd la laay def heure bi damay sport heure bi damay nelaw heure bi damay def nangam lépp mu teg ko si yoon heure bi damay jàng heure bi damay waxtan heure bi lépp mu bind ko def ko ci xelam jàpp lo non incha allah mu gëm lo non doxé non non da nga gis réussite bu mag a mag mag parce que nit waru nek mumbai xamul tay la la wara def suba lu wara def manam da mu day dox ni rek melni ben bayba bo xamantene boo xamante ne nit dafa war lépp am ay réglement non kon bu ci njëkk mooy ab tanzim bépp nit na fexe def li nga xamantene mu ak tanzim manam organisation deuxième chose moy maharaatu tawassul maharat tawasul suñ ko waxee mooy mën a jëflante wala mën a wax ak ñeneen ñi mën a wax ak say moroom mën a wax ak ñi la mag mën a wax ak say papa mën a wax ak fu nga xam ne même sur président de la république sax invité woon yow mën wax ak moom xam nga ton bi ne moom ngay wax moom ton boobu nag da koy jàng da ngay dem si ñi nga xamante ne jàng nañ wax ñu jàngale ko bépp nit moo xam koo mënti doon da war a jéem a jàng di wax ci mbooloo ak mën a wax ak kilifa mën a wax ak jigéen mën a wax mën a wax ak président mën a wax ak sëriñ daara mën a wax ak ñëpp daal yow daal da ngaa war a nekk nit koo xamante ne da ngay mën wax moo tax bokk na ci miftaaxu najaax maanaam caabi réussir mooy nit mën a wax kon deuxième bi nga xamante ne moom lañ wax mooy maharatu ak tawasul maanaam mën a jokkoo ak nit ñi troisième chose bi nga xamante ne incha allah boo ko toppee da nga li nga xamante ne moo résultat mooy al axlaamul kabira wal ahdaaf assaxira maanaam nit ki da nga a am li nga xamante ne mooy ay mbébét am ay li nga xamante ne mooy ay gént yi am ay yaakaar yoo xamante ne ay tumuxaat yoo xamante ne yu kawe lay doon nit ki da war a di rêver kawe ba pare nag am ay objectif yu ndaw su da mën a ñaan ah man de bëgg naa nekk milliardaire bëgg naa nekk nangam bëgg naa nekk koo xamante ne ku nangam la mais nag da nekk si ki li nga xamante ne moom ngay liggéey maanaam mënoo jëndoo ay liggéey yu bari te nit ku ndaw nga amagoo dara nga bëgg a fi fii jëm fii jëm fee soo moytuwul rek benn du dem da ngay am benn xëdëf benn rek nga concentré si wala ñaar sa au moins nga concentré wu si nekk si gis résultat mais doo ñëw topp ay naan ah man damaa bëgg nekk milliardaire dem fee jaay këriñ suba nga dem jaay matt day dem ba benn instant da ngay échoué te lu ko waral mooy li nga duggandoo te kenn kese nga moo mënul nekk te mënoo koo sumbi moo tax nit ki booy doo commencé nga bëgg réussir da fexe nga def li nga xamante ne mooy nànk ut benn objectif jaar si benn yoon moo xam da ngay nga topp jàng bi topp jàng bi topp jàng bi allah nga gis wala da ngay jaay nga topp jaay bi topp jaay bi wala médecin ngay liggéey nga topp ko topp ko wala daal nga topp benn concentré wu si dara incha allah nga gis réussir kon boobu mooy suñ troisième point quatrième mooy ak tarkiisu ala mawhiba maanaam nga concentré wu ci li nga xamante ne loola la yàlla may xam nga nit ku nekk yàlla daf ko am lu ko mooñaale da ngay gis nit koo xamante ne su duggee si jàng rek day gis yàlla ko ibbi bunt yi man dafa yomb si moom dafay gaaw mokkal dafay gaaw a def nangam nga gis koo xamante ne duggee si wàllum ay médecine ak wala yu mel rek nga gis ko war a xam nit da a xam nga xamante la may nga jëm see concentré nit ku ne am na loo la yàlla may nit ku nekk am na loo xamante ne moom la la yàlla defal léegi ne yow mi de mënoo ko wala yow woo si a dugg peut-être da nga xaw a sonn mais am na loo xamante boo ko laalee rek da nga xam ne yow mii lii mën nga ko loolu nag nit ku ne am na ko koo xam ne si jàng ko am bu téyee kaye fët mu mokkal da gis koo xamante ne bu téewee peel rek pour tabax rek da nga xam ne kii yàlla may na ko donte sax da ngay gis ñoo xamante ne moom ñu ñoo jàngandoo maçon mais moom bu ñëwee day mel ni da leen di doubler raw leen loolu nag yàlla moo koy defal nit ko neex mooy jël benn métier defal ko nit moom tamit dafa war a xam loolu mu jéem a xam ne ah man de lii de mën naa ko naa si jéem a ko santéro gën see bàyyi xel bu baax a baax incha allah rek dina gis li nga xamante ne mooy résultat suñu cinquième chose bi ba nga xamante ne bokk na ci waral réussir mooy al itiraafu bil xata wa taxallubu bu al fachal mooy nangu njumte ak bañ échoué nit ku nekk ak projet boo mënti dugg ak loo mënti def muy jàng muy diine muy lépp loo mën a dugg peut-être mën nga def ay njumte njumte da lay dal léegi nag njumte yi da koy nangu soo jumee ah da nga naan jum naa exemple su doon nga def benn business nga génne sa alal ju dugal fenn nga dem nga def benn mission wala nga doon jaay dara mu échoué wala sa place lakk wala dara léegi nag loolu bu ko jàppee échoué da ngay def li nga xamante ne mooy da koy jàppee jumte mais nag doo nangu ne échec am na ñoo xamante ne suñ def loolu dara comme ñu commencé woon benn business wala benn métier suñ defee benn erreur rek dañuy jàpp ne échec nañ dootu si nangooti continuer léegi nag képp koo xam na da ngaa bëgg na jaax bëgg maanaam réussir il faut ngay nangu erreur ba pare di bañ échoué maanaam lépp lu ñëw nga ah la incha allah beneen yoon du ma dalaat loolu mooy tax yow dooto échoué incha allah da ngay mën a jugaat ndax borom xam mi dañuy wax naan ñu ëpp ci ñi nga xamante ne réussir nañ jaar nañ ci li nga xamante ne mooy échec maanaam mës nañu def dara échec mais ñu jugaat amaat force ñëwaat peut-être sax mu dolliwaat échecaat mais ñu amaat force ba keroog yàlla di leen yëkkati dafay ci nettali benn histoire bu gàtt rek dafa am benn waajoo xamante ne dafa doon xeex ba muy xeex ñu gañe ko bañ ko gañee mu demaat xeexiwaat ñu gañewaat ko mu groupe am mu découragé ba mu toogee moom nag chef la woon ba mu toogee si li nga xamante ne mooy àll bi découragé bëgg bàyyi xeex ba mu toogee noonu mu gis benn xorondom ay xorondom yu bëri rang di yëg si benn miir xorondom dañuy yëg kaw bay waaj rek daal di daanu ñoom duñu bàyyi de ñëwaat jéem a yëgaat bu ñu yëgee ba si a kaw kaw kaw kaw bay waaj a yëg rek daal di mbabbuwaat daanuwaat suuf mu ngi xool xorondom yi rek ba ñëw ba troisième fois bi rek xorondom yi daal di yëg jàll mu ne ah ok kon nit ki mën a def erreur pare te du teene beneen yoon incha allah yàlla mën na ko may mu réussir sixième bi mooy alxazmu wal mugaamara wa thiqa nit ki nga xamante ne dafa bëgg réussir dafa war a def li nga xamante ne mooy di def ay aventure maanaam di dugg si loo xamante ne parfois mën na am risque tuuti sax mais see war di dugg parfois parce que nit ki waroo di xool lu gën a yombee rek yow mu gën a yombee rek si nga nekk soo bëggee avancer dëgg-dëgg loolu il faut da exemple su dee da bëgg xam-xam dëgg-dëgg parfois dalay jaral nga dugg ci dëkk yi nga xamante ne dafa sori dafa wax nañ leen la fii am na xam te peut-être naa wóorul wala daal nga daw dem dugg fa uti xam-xam incha allah di nga am xam-xam dëgg dëgg dëgg te warul nekk koo xamante ne tamit da ngay sikk sàkk lu bëri da nga war a nekk koo xamante da ngay concentré wu ci sa objectif nga jël benn rek dem si kenn du la mën a génne yow kay fexeel nga tànn ba xam lu baax la wala lu bon la su nekkee lu baax rek concentré wu même bu àdduna bi yëpp doon contre la yow da ngay gëm li gëm nekk si incha allah dañ si gis réussir septième chose bi mooy bi nga xamante ne mooy al injaz injaz mooy yow da ngaa war a nekk koo xamante ne bul di def loo war a def tay nga naan ah naa bàyyi ba suba loo war a def tey suba nga naa bàyyi ba ngoon maanaam daal comme dara ñëw nii rek nga def ko yow doo def loolu lépp looy dugg comme ça su dee da ngaa bëgg xam-xam wala nga bëgg xaalis wala nga bëgg dara yow su dee tey lañ la wax ñu jox la rendez-vous wala nga war a dem fenn fa tey mais bu ne non naa bàyyi ba suba te yow leeral yow mii de suba bi ngay bàyyi tey ay nelaw moo ko téye def wala loo xamante ne sax amul njëriñ noonu nga yàqal sa bopp xaar noonu pour de suba moom la arab di wax naan laa tu ajjil amalal yawmi ilal gadi bu jël eh, jëfu tey liggéeyu tey nga koy yóbbu pour suba kon bépp nit na jéem a concentré wu ci li nga xamante ne moo objectif am moom la bëgg te bu mu nangu jël li nga xamante ne mooy ay mbiram di ko yóbbu ba suba loo xamante ne moom la waroon def tey di ko yóbbu ba suba huitième bi mooy alqudratu alal istima nga mën a dékku mën a déglu nit ñi nit bépp nit boo mënti doon dangaa war a nangu di déglu ñi nga xamante ne jàpp nga ne ci li ngay yëngu ñoolu si ëpp xam-xam su fekkee si xam-xam ngay yëngu wala ci wàllum diine wala dara da ngay nangu di déglu ñi nga xamante ne ñoolu ëpp xam-xam su fekkee ci wàllum maçon ngay liggéey da nga war a déglu ñi nga ne ñoo la raw ci maçon maanaam daal képp koo xamante ne ci li ngay yëngu moo la ciy raw da war a nangu di ko déglu bul naan ah duma ko déglu non non déedéet neuvième bi mooy al ijabiya wa xusnu at taqdim maanaam nekk nit koo xamante ne am yaakaar bu rafet chaque jour après tamit nga tegu si yoon maanaam nit koo xam doo def li ñuy wax ak tashaum ah du baax tey moom du baax su ma demee duñ ma jël de su ma lii ah du ma réussir jaru ko nit waruñu ne mel war a ah tey incha allah dina baax non man kay baax su ma demee dina ma jox li ma bëgg dinaa ko am incha allah nekk nit koo xamante ne doo def li nga xamante ne mooy tashaum yonent bi sallallahu alayhi sax daf ñëw digal li nga xamante ne mooy tafaawul maanaam di mbébét lu baax. di moytu nag tashaaum mooy di mbëbët loo xamante ne lu bon la di gëm ne yoom yi sa avenir incha allah day baax lu métti métti tey tamit nga gëm ne suba dina neex dixième bi nga xamante ne moom la ñu tëjee seen vidéo bi nag mooy addu'a ñaan lépp loo xam ne da nga ciy dugg nga bëgg si am réussir fexeel ngay ñaan ki nga xamante ne muy yàlla ndax moom moom moom lépp moo xam lépp moo mën lépp ñaan ko ne yàlla ah man lii may dugg nii yàlla si may réussir ma avancé si ba am ci li nga xamante ne moom laa si njortu bëgg ko si kon mbokk yi fi lañ yamale vidéo bi ba beneen yoon incha allah kon fi lañ yamale vidéo ba beneen yoon incha allah ñu lay fàttali rek su fekkee abonné ko suñu chaîne bi nga abonné aussi tamit nga aimé vidéo bi soo ko mënee partage tamit nga partagé ko salaamaaleykum wa rahmatullah